mais waa snap yéen yéen da ngeen tardé yéen yéen yi ko leen mariage dañ ko annulé laa ilaaha illallaah mariage annulé nañ ko depuis ci suba <laughs> ñii fuñ ne